waaw ah, maa ngi tey eh, fii tribunal bu Dakar eh, ci plainte boo xam ne ancien ministre Mansour Faye la toro Macky Sall eh, fi indi ne dama wax loo xam ne lii maanaam dama ko diffamé li tubaab di wax diffamation maanaam li ma wax daal méngoowul ak dëgg da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 dañu ne daaj u Mansour Faye dañ ko war a woo yoon waaye daaj ba ba mu bañ ko laajee dafa ne Mansour fay moo ma indil ab tableau ne ma da nga koy cent quarante cinq mille mu ngi ci biir rapport bi waaw kooku ne dañ ko diffamé mais kooku moo waroon taxaw fii tribunal. parce que avocat ñoom ñoo amul fenn fu ñu cité le nom de Mansour. rapport maa ngi wax sénégalais yi mu ngi ci site cour des comptes bi na ngeen ko dem ubbi ngeen lire ko.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 Le dossier est là, dort ici au tribunal. Ce dossier doit être réactivé. dans le rapport de la Cour des comptes, a dit ministre Mansour Faye qui venu avec un des prix et qui lui a dit d'acheter à 145 000. C'est à la page 102 du Il faut, le, faut, faut, regarder ce rapport. Je vous euh, euh, de la Cour des comptes. rapport là vous demandez un peu plus de eh, il est scandaleux, c'est un véritable scandale que moi j'ai à passer la journée ici, à la barre, pendant que lui, qu'on accuse vraiment de surfacturation, parce qu'on parle du ministre, du ministère, on nous a fait, on veut nous faire croire qu'il n'a pas de responsabilité dans ça. Eh, Mais l'ordonnateur des dépenses, vous pensez que dans un ministère, un DAF peut dépenser voilà, milliards 740, 100 à l'aval de son ministre, vous vous le croyez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 Je peux le dire. Lui, il n'est pas capable de vous dire qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'il ne faisait rien pour qu'il mérite un poste de ministre. a aussi reproché Mais c'est la famille du... Moi, je, n'ai aucun intérêt particulier pour mon secret. Franchement, je n'ai aucun intérêt. Il n'est pas mon interlocuteur. Lorsque je parlais du fonds Covid, je m'adressais au président Macky qui a levé toutes les lois de contrôle. Si on avait mis un minimum de contrôle, on n'aurait pas

dans cette affaire scandaleuse, parce qu'il ne faut pas oublier que près de 5000 sont morts du Covid, pendant que certains pensaient faire de la surfacturation. Je vous remercie.